وصلى الله على نبيه ومصطفاه الفاتح الخاتم ما أعلاه والآل وصحبه ومن والاه حق قدره ومقداره العظيم قصيدة جينيو bëgg jàng bi idnillahi tabaaraka xasida tawassul ju rafet la ju gàtt ci baat waaye lambu boole maxaani ñaan yàlla ki ko taalif nag xawma ku ko dàq wéy ci ñuy wéy ci làkku yaaram xaw ma it ku ko gën a bëgg Mawlana Cheikh Tidiane radiyallahu taala anhu ci mbokki maam xalifa yi lu ca guddal mu torox lu ca def ca ñaan mu nekk xasida boo xam ne mënees na koo jàng gannaaw wadifa wa taala ñaan ca ko defee ñu di ko jàng gannaaw wadifa ku ne ca saase rek maam xalifa sant xasida ci ngir woyal ndigalu sëriñam way juram alxaji abdullahi daa kiiraay la rek ci ñi xamul yàlla waaye du tënk wali ku tënk mukk moom it mu temm neena in istajartu bi jaahil Mustafa karaman wa jaahi Ahmada sheykhil xaatimil aalamiin inni man Alaaji Muhammad Ñas istajartu laqu naa istajartu wut naa jiwaar yoo xam ne moo may garanti mooy may musal maa ngi laqu sakku jiwaar bi jaahil Mustafa ci darja yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi yàlla tànn karaman ci tedd ga wajaay Ahmed ak darajay Mawlana Cheikh Sidi Ahmed Tijaani cheikhi ki sama sëriñ alxaatimi ki tëj maqaamay wali yu yëpp alalami yi nga xam ne mooy doj bu kawe yi mooy màndarga mi wali yu màndarga mi leen di xàmmee mooy Cheikh Tijaani te ju wilaayatu kawe yi nga xam ne moom dëkk rek mooy wilaayatu ku amati wilaayatu ci moom nga ko jëlee mooy Cheikh Tidiane maa ngi ñaan ci yàlla ci barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa nga xam ne bu dul woon ak moom yàlla du amal kenn moom rek la yàlla bëgg di ñaan ci barkeb xalifaam bi nga xam ne fu yonantu nekkee na bi moom nekk na fa waliyu yenentu tëbbee lambiyaaw yeeg mursalin yi mu ngi fay tëbbee aarifina yi awliyaaw yi aqtaab yi maa ngi ñaan ci seen barke wajaahi walidina cheikhi xalifatihi ma al wasaili turan xamilil xikami wajaahi walidina ak barkeem suñu wayjur maa ngi ñaan ci darajaay suñu wayjur cheikh yi sama sëriñ xalifati kii xalifaay Cheikh Sidi Ahmed Tijaani radiyallahu tabaraka wa taala anhu mu jublu ca way juróom wa Cheikhul Kabir wal aalimu nixriir alxaaju Abdullah bin Seyd Mouhamed Niass qaddasallahu asraarahu maa ngi ñaan ci barke Alaaji Abdullahi kii xalifa Cheikh Tijaani maal wasaa'il ànd ak ñi dox sama digganteeg Cheikh Tijaani ñëpp ci sëriñ durran ñoom ñëpp laa wax xaamilil yi ñi nga xam ne ñooy woy yaru ji xikam mbóot yi nga xam ne ñoom la Cheikh Tijaan radiyallaahu tabaaraka wa taala anhu dikkee xam-xam yi ànd ak njëriñ ndax yuutil xikmata man yashaa te dëgg-dëgg xam-xam yu ànd ak njëriñ mooy xam yàlla maa tax nitu yàlla yi ne al xikmatu mooy al maarifatu billaahi tabaaraka moo ci lan laay musloo ci darajaay ñii ma tudd sang yu maa ngi ñaan yàlla mu musal ma ci seen barke min ashururi min ashururi wa min kaydil aduwi wa min shamatatin min aduwin jaalibil gumami min ashururi maa ngi ñaan yàlla mu musal ci ay yëpp nag li ci des yëpp kat mina shuruuri mhm. min kaydil aduwi dugg na ci shuruur shamaata dugg na ci shuruur shuruur mhm. mina shuruuri ci ay yëpp wa min kaydil aduwi ci pexe yi noonu yàlla boole musal ñu ci pexe yi noonu wa min shamaatatin ak ci ndokk min aduwin ci noonu yàlla musuñ noonu sa noonu bu kontaanee ci yow rek yàqu nga waaw laa tushmit bi al aadaa laa tushmit bi al aadaa wala tajcalni maa al qawmi al zaalimiin hmm, yi nga xam ne jaali bil gumami way bijj lañ jàqare ay fay bijj jàqare fexeem noonu noonu noonu bu la ndokk xam ne xamal ne yaa ngi ci guddi gu bët setagut mbaa du gumbatam du set am nañu yàlla boole musal ci yoolee yëpp ne na aw xaasidin shaamitin aw di mukashaxatin raamahtidaamiya min urbin wa min ajam aw xaasidin wala aji añaan shaamitin ka aju ndokk wa min charri xaasidin ida xasad ayu aji añaan ñaar la aji añaan ayamam ci ayam ci biiram su fekkee sax appliqué wul añaan ga yàlla ñu musal ci ayu su ko appliqué nag mu gën a bonati moo tax yàlla ne ida xasada azimu kashaxatin yàlla ñu yàlla boole ci ayu aju añaan waaye bu mu yem rek ci ayu añaan yàlla ñu yàlla ci ayu di mukashaxa mooy boroomu noonu raamal ko sàkku na ihtiqaami sama gotti sama tooñ min urbin moo xam ci arab la bokk wa min ajamin mbaa ci làkkat yi xam nga waxoon na yàlla mu musal ko ci pexeeb noonu waxoon na yàlla mu musal ko ci ndokk noonu waaye noonu léeg-léeg buy fexe mën naa am doo gis muy fexe waaye am na koo xam ne nooneelam nag yegg na ci nëbbatu pexe ma maa nga jóg jël jaasi mbaa jël gobar mbaa dégg nga ànd ak ñu mën a àndal yëpp daal sa kaw hmm. kon muslu na ci noonu boo xam ne ma ngay fexe ca suuf muslu na it ci dara dal ko loo xam ne su ko noonam xamee kontaan ca muslu na ci aji añaan aji añaan sax mën naa sax du noonu waaye dafa feebar dafa feebar waykat ba mu ne adulma min chiyami nufuusi fa in takun daa iffatin fa li illatin laa taglibu wala fa in tajid daa iffatin fa li illatin laa yaglibu waaw mu ne mën a tooñ dafa ànd ak nit soo gisee ku fegu xam na lu tax yàlla may fegu wa min tawaariq wa min tawaariqi leylin fiihi fi nnahaari siwa alxayraati wal xirson min tawaariqi leylin maa ngi ñaan nga musal ci way rañaan guddi tatruquni ñooñ danañ ma fëgg danañ ma dikkal fii ci guddi ga wa fi nnahaari ak ci bëccëg si wal xayraati lu dul yiw ya la wala isami ak musal ya bépp aji rañaan bépp aji dikk moo xam guddi lay dikk wala bëccëg lay dikk bu fekkee ne àndul ak yiw rek musal ma ci moom waaw mu mel ni ñëw na ci ñaan nga ci xadis yi wa kulli taariqin illa taariqan yatruku bi xayrin ya rahman illa tariqan yatruku bi xayrin ya rahman tawaariqu layl mooy bépp xew-xew boo xam ne dafay xew guddi wasamaai wa taariq wa ma adraka ma taariq an najmu thaqib waaw ñu ne a taariq mooy bépp aji dikk mu ne kon nag lépp luy dikkal nit lépp luy dikkal jaam ndegam guddi la ndegam bëccëg la su dul yiw rek na ma moy waaw su dul yiw rek na ma moy su dul mucc rek na ma moy wa min tawaariqi laylin fii tatrukuni wa fi nahaari siwal xayraati wal usri wa min salaatini haada dahri ajmain qina ilahi shuruura kulli bilka wa min salaatini hada dahr wa min salaatini hada ak ci buuri jile jamono suñ ci ay buuri jile jamono hmm, mel ni buuri jamono mu gënuñ suñ buuri jamono hmm, ajmaihim boole yi yal na nga fegal ñu ilaahi yow sama borom shuruural kulli ayu ñëpp ci ñoom bil karami te fekk duwul ne sax faa ko mérité waaye yow danga baax rek yàlla ko may ci sa mbaax gi maanaam bul ma fegal fekk man dama mérité nga fegal ma ndax ku nekk ci ñun xëy na def nga loo xam ne mérité nga yàlla mbugalee la sa morom yonentu noonu da buñ demee ba tollu fenn fi yàlla dana xiir ci ñun ñoo xam ne dañuy togg ay tooñ te duñ ca mën dara duñ ca mën dara kama takunuuna yuwalla ngeen mel rek dañ leen di yilife yàlla bul ñu xool nag xoolee ñu sa bëtu baax sa bëtu tabe sa bëtu tedd ba ñu ci ayu buuri jamono ñoom seen buuri jamono métti woon na ndax ci colonisation lañ waaye suñu njiiti jamono gën a métti ndax ñoom ñoo ma niroo ñoom ñoo ma bokk ndey ñoom ñoo ma bokk baay waaye ñu jël jikko yi ñooñu yilifoon di ñu tooñee doole denc defi ñooñu bàyyi wala ji ñooñu yore ci suuf ñu yàlla boole musal ci seen ay wa min isaati ahli suui taasimuna kada makaidu ahli lkaydi wanniqami wa yàlla nga ñu boole musal min isaati ahli suu ci ñaawalu ñooñ bon waaw ci ñaawalu ñooñ bon waaw ci ñi nga xam ne euh, dañoo bon ba seen lépp ñaaw seenug ñaawa yàlla nga ci boole musal ahli suu ñooñ bon ñooñ ñaawteef taasimuna yàlla nga ñu musal ci seen ñaawal ñaawal ñooñu kadaa naka noonu makaayidu ahlil kaydi pexe yi ñooñ pexe wan niqami ak mbugalum ñooñ mbugal ak ñooñ pexe waaw yàlla na fegal seeni pexe seeni mbugal wa awlina dahra min qutbil wara madadan bi waabilin min xayal irfaani munsajimi waaw li naa yàlla nga méngale ñu addahra giiru dund giiru dundug jamono min qutbil waraa tukkee ci sidna cheikh ahmad tijaani sharif alfatimiyi radiyallahu tabaraka wa taala anhu madadan tëbb hmm? madadan tëbb bi waabilin jiwaame min xayal irfaani ci taw xam yàlla boo xam ne mun sa jimi aji sotteeku la waxuma la sotteeku waaye aji dotteeku la ndax luy sotteeku mën naa bëri mën naa bañ a bëri waaye luy dotteeku nag bëri ga fa yokku kon nag yàlla nag ñu may e, mëdët ci bépp wàll nag moo xam gu aju ci àdduna la moo xam nga aju ci àllaaxira la moo xam nga aju ci biti la moo xam nga aju ci biir la moo xam nga aju ci xam-xamu baaxir la moo xam nga aju ci xam-xamu baatin muy xam yàlla te lépp kat madad ba mooy Cheikh Tidiane mu middun li aqtaabin fuxuulin bawasilin awaahil turam wa awaaxir waaw nee na fa laa fa laa laa yashrabu waliyun wala yasqaa illaa min baxrinaa Cheikh Tidiane mu ne wali yooyu du naan du du du naan dale du dul ci suñ géej waaw wali du naan du du naan dale du dul ci suñ géej mu ne kon nag yàlla na nga ñu may ci madadu Cheikh Tidiane googu may koo xam ne day mel ni taw waame muy sotteeku te du arrêté madad ga nag moom ba ko ca gën a yitteel mu ne min min xayal irfaani waaw min xayal irfaani ñu ko waxee ci ci jël benn xikmatu mooy am mooy maarifatu moo tax moo tere nelaw ñëpp la ca du doy waaw ndax yàlla du da ngay dem jëm ci moom boo demee ba nekk ca yoon wa nag ngay demee ci moom boo àggee nag ngay dem ci moom ngay dem ci biiram man a seyru ilallahi wa seyru billahi waaw boo yeggee nag nga def a seyru fillahi a seyru fillahi moom du jeex ndax yàlla du jeex wa anna ilaa rabbika muntaha mu tëj ne summa salaatu ala almuxtaari min mubaari wa alihi wa alihi tayyibil axlaaqi wa shiyam humma salaatu jullit yàlla alal muxtaari yàlla nekk ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne moom lañ tànn min mudarin ci giir gi di giiru mudar mudar maa maati yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Abdullahi ko jur Shaybatu jur ko Haashim jur ko Shaybatu mooy Abdul Muttalib Haashim jur ko Haashim mooy Amr Abdu Manaaf jur ko Abdu Manaaf mooy Mugiira Qusay jur ko Kilaab jur ko wala Kullaab Murratu jur ko Kaab jur ko la dégg nga Xaalib jur ko Luway jur ko Xaalib jur ko dégg nga jur ko Malik jur ko Nadar jur ko Kinaanatu jur ko Xusaymatu Mudrikatu Ilyaas mu tax xam hmm, ne góor gi di wax Muhammadu nuura abdillahi shibata hashimin wa abdi manafin maa qusayhimi kilaaba murrata kaabin wa luwayin wa xaalibin wa bihrin wa malik nadarin ilkarami kinaanatin wa xusaymatin wa mudrikatin ilyaasa maa mudarin xamraa siirihi siddiq ma solaatu yàlla na julli yàlla xéwalam nekk alal muxtaari ci suñ sang sayduna rasul sallallahu alayhi wa sallam miñ tànn min mudarin ci gir mudar wa alihi ak ñooñ yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam aalu nag ci wàllu ñaan julli jëpp a ciy dugg waaw bu dee ci wàllu àtte mooy almuminuuna min ne ak min bani muttalibin tamit aha ñi gëm yàlla ci banu haashim ñooy ñooy alu rasulillahi ñooy ñi sàkkaat xaraam ci ñoom ñi ne ci banul muttalib tamit muttalib frèeru haashim la mooy maamaati imam shafii rahmatullah aleh tayibil axlaaqi ñi nga xam ne ñooy way teeji jikko wa chiyami ñooy waytee ji jikko it ndax alxuluqu ak chiimatu dafay nekk loo xam ne dañ koy sakku wala mu nekk loo xam ne yàlla fa la koy bindaale waaye yëpp rek yu rafet la wa alihi tayibil axlaaq at tabaai wa kadalika chiim waaw mhm. hada wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi al-azim lim ñaam ci xasiida yi yëpp yàlla nañu ko bokk lim ci muslu yëpp yàlla nañ ci yàlla boole muslu hada wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi al-azim amin